mooy 277 qui a été évoqué ci code électoral beeg yooyu est-ce que jàpp nga ne li ñu tegee yoon yoonu na ba ñu yegg si fu toll nii waaw ah, mais loolu wax nañ ci ba pare peut-être une autre question mais loolu ah, ah, non non yow yow waxagoo si yow yow sa après non loolu franchement on en a déjà non non yow waxagoo si yow sànq si fond nga yewoon yow ci fin yi nga nekkoon quoi yaa ngi woon ci fin yi xew tey non non baal ngeen def sànq yow dama <laughs> loolu laay waxaat on a besoin de vous entendre non non Ahmed sur li xew cela 15 jours oui 15 jours j'avais dit que monsieur Diaz était dangereusement encerclé. Ah, waaw loolu wax dëgg neex yàlla waxoon naa ko. Mm-hmm. man kay xanaa ñaanal ko. ñaanal ko yàlla yi fi yem fii. Mm-hmm. parce que à supposer par exemple la plainte de maître Abdinar ñu mm-hmm. diligenté ko. loolu est-ce que mënul jur leneen. à supposer par exemple ñu yónni ay corps de contrôle et pas uniquement à la mairie de Dakar. mais dance toutes les mairies à supposer tey ñu def loolu est-ce que mënul jur leneen donc on parle de radiation donc man jàpp naa ne Barthélémy Diaz nekk na ci lendemain yoo xamante ni bii lendemain yu wala ci guddi yu jafe la nekk fi mu nekk ni ci politique léegi nag comme je l'ai dit en tout à l'heure ah article 277 bi dafa am ay débat am ay polémique léegi attendons de ce que sera par exemple euh, comment dirais-je encore son recours s'il est suspensif ou pas après les Sénégalais. non d'après li may gis moom ce n'est pas suspensif. ce n'est pas suspensif. waaw mais am na débat daal. xam nga yow ah, d'après li nga lire man li ma lire Ousmane keneen <laughs> est-ce que loolu ça lie le juge aussi. Mhm. personne ne sait ah. est-ce que ça lie. mais am na droit def recours quand même. ah mais bien sûr kooku kay c'est de c'est de texte kooku kay mu ngi nii ci comment on appelle ah, ça. ah kon tey dañu daal code électoral bi. ah yow. bàyyi ma dugal dafay yéex. Ahmed mu ngi nii loolu kay mu ngi nii ci alinéa 1 bi. Mhm. léegi il a parlé que il a il a dit que on doit le lire dans son ensemble. dans son entièreté page mhm. comprendre nga. Mhm. léegi attendons de voir si le recours va lui permettre d'être rétabli dans ses droits mais franchement je ne pense pas que ni am na chance di des mairie Dakar quoi man li ma jàppoon mooy peut-être dañ koy bàyyi mu àggale yóbbuwaat ko élection gañawaat ko xam nga les hommes politiques chaque jour ma wax ko ils réfléchissent en sens interdit xam nga tey Barth boo ko euh, ça c'est-à-dire tey jii bu ministère de l'intérieur defoon recours mhm. mu inéligible yaa ngi dégg mhm. bu demul woon élection kenn du dégg ci dëkk bi mhm. c'est comme Bougane Gueye Dany kenn du woon dégg ci dëkk bi xam nañ ni je pèse sur Dakar je trône sur Dakar je hmm. suis le xalifa de Dakar n'est-ce moo tax ñu xañ ma élection mais da nga koy bàyyi mu dem élection nga peese ko natt ko xam qu'est-ce qu'il vaut après nag looy def nga soog ko def léegi daal ci sera le prochain maire de Dakar man loolu ça me rappelle 2018 bi nga xamante ne bii Khalifa Khalifa Sall éjecté nañ ko donc euh, on va organiser incessamment par exemple on va convoquer naturellement le conseil, conseil municipal ñu xool naturellement ce sera un conseil de passif qui va hériter <laughs> de la mairie. est-ce que leer na. ah. parce que Benno rek am nañ fa 33 600 conseillers municipaux yi. mais Benno kan ak kan. leneen li moom Pastef ak Taxaw ñoo ko séddoo. ak ñeneen quoi ñoom Cheikh Bamba ay benn ay benn ak benn benn yi. ah waaw peut-être mais yaakaaruma beneen obédience. gagner, gagner. Mais battre parce que les gens, parce que, parce que les gens vont, vont faire du underground, les gens vont discuter. On va voir les intérêts. waaw kay mais baat acte bi mu posé euh, euh, contre toute attente hmm. si euh, ndàmpaay yi mu war a jox la famille de Ndiaga Diouf. Hmm. sa sœur Bindi Cheikh ñu jox ko la famille. loolu politiquement est-ce que mën nañ si def benn analyse par rapport à la situation actuelle. politiquement non Bart mu wax dëgg na yàlla bëggul woon dellu ci kaso bi keroog donte nag muy doon wax naan non euh, buñ ma yóbboo foofu yóbbu nañ ma foo xamante ne bii miin naa ko. Mhm. mais Bart keroog. mais de manière assez surprenante da koy xool xam ni dafa tiit daal keroog mu jeex man ci samay bët boobu dafa jeex man ci lu ci ci lu gaaw ah waaw bi ñu ébruité affaire bi rek. mu gaawantu euh, xam nga sëram bon d'après li ñu wax mm-hmm. mais bon l'esprit mal tourné me dit que c'est lui qui a payé mm-hmm. c'est ça mon esprit mal tourné. je suis d'accord avec toi ah je suis d'accord avec toi. ah man c'est mon esprit mal tourné. <laughs> qui me dit que c'est Bart qui a payé. non bien sûr c'est pas trop tordu. quand même non non non mal tourné. waaw li nga gëm moom bëri nañu ko gëm. non mais attendez quand même mm-hmm. fii kenn du fi yeewul seulement gannaaw. on est <laughs> d'accord donc euh, il était en de fuir la prison et c'est tout à fait normal parce que gars fii dañ lay gis nga gars ñu fi jàll ñëpp dañ leen fàtte ñëpp lañ leen fàtte te du lay yóbbu ay paquetage non dañ lay xam nga ay kilifa boo xamante ne bii sëñ bi mat la bi ngay tëdd rek 2 millions lay jar man xam naa kilifa yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi mat la yi ñuy tëdd 2 millions lay jar sëñ bi nga dem fee bokkante loolu neexul am tuuti. mais ëllëgam ci politique nag comme ni ko. loolu ça je l'ai déjà dit. Barth s'il veut faire vraiment carrière il doit se réinventer très honnêtement Ahmed Diallo. qu'on le veuille ou pas am na ñoo xamante ne bii qui se retrouve dans le de Pastef qui fait face à la réalité dure du pouvoir tu comprends mhm. léegi nag comment faire pour proposer mieux ou bien comment faire waaw voilà pour proposer mieux une offre nouvelle quoi une offre nouvelle te ñu na fi ay député yoo xamante ne bi amuñu offre politique quoi maa ngi dégg kenn taxaw naan non man offre politique laa indi te sëñ bi c'est-à-dire xamuñ sax luy offre politique boo leen waxoon lan mooy offre politique ñu ko comprendre nga mm-hmm. donc yi daan am fii te Barthélemy Dias wax dëgg na yàlla li ko dal aussi ku waxal yàlla xam ni lenn li Macky Sall moo ko teg mu nangu ko woon aussi ah c'est ça la aussi mm-hmm. parce que gars ñi xam nga dañuy nax seen bopp leneen li aussi moom moo ko teg boppam sëñ bi xam nga qu'on le veuille ou pas Pastef bi muy taxaw wax naa la ko fii sànq di am yenn discours yi boobu am na lu mu téye mais amet ku naxul sa bopp xam ni dak Dakar non ne te retrouvez pas autour euh, de de comment dirais-je encore gis ñu woon seen bopp ci dañu waxante dëgg rek mm. koo xamante ni bii da ngaa dem élection yow sa bureau de vote dañ laa gagné ngay taxaw di def ay surenchère. malgré ses réalisations. mais réalisation lan par rapport ak lan man réalisation yi man daal bëgg naa. par rapport à son budget. <laughs> mais Diallo mais Diallo mais mhm. Ahmed Diallo. Mhm. il faut que les gens aussi tamit. Mhm. soient beaucoup plus. profonds beaucoup plus exigeants par rapport. ak moyens yi ñu di jox. waaw mais amet jàll jafe-jafe transport bi am Dakar Bart waxu ko pendant les vingt et un jours de campagne. déedéet ana Dakar smart bi Bart jaayul waa Dakar. Dakar qui devait être une ville intelligente waaw loolu la campagne yow fu mu toll. Ahmed insalubrité bi nekk Dakar yow sant ne parle pas yow embouteillage bi nekk Dakar sant ne te parle pas bi am buntu pale yow ça ne à moins que ñiy mànjee aussi peut-être dañuy def du renseignement loolu mën na nekk loolu mën na nekk. Ah, te man gëm naa loolu moom bu révélé loolu moom am na loolu moom am na ah du ma ne du ma ne ñëpp ma am na ci. insécurité bi ah, nekk Dakar. ah loolu pendant vingt mais da ngaa dégg Barthélémy Dias wax ko ci campagne bi. en que maire de la ville de Dakar déperdition scolaire bi am Dakar dangaa dégg mu wax mais man je me demande qui conseille nos hommes politiques man man loolu dafa ma jaaxal. non réalisation dafa ndaw trop par rapport ak. man quand les gens me parlent kenn waxul deful dara mais dafa ndaw quoi par rapport ak liñ ko nattalugul. u bi 56 milliards mairie de Dakar. yorul xaalisu xale. Ahmed loolu ça me na toog ak Diomaye. am tuur mais la Barthélémy Dias waroon na mën a toog ak le ministre de l'intérieur. ak le ak ses ministres de tutelle. ay ses ministres de tutelle. mais nañ ma dëgg quoi am na loo xamante ne bii mais c'est de l'intelligence approximative instantanée spontanée warul mën a toog ak ministre de l'intérieur parce que le maire des Parcelles Assainies Jamil mhm. bi mu bëgg a organiser foire week-end passé mais dafa dem seen ministre de l'intérieur mais qui peut le plus peut le moins non Barth man jàpp naa ne bu bindoon note Jean Baptiste bi ma xam nga xamante ne mag da daan bëgg dara ndeysaan am na yoo xam ne kenn mënu ko wax quoi da daan bëgg dara <laughs> en privé ne ah xam naa Jean Baptiste moom du ko nangu donc c'est une personnalité boo xam ne ces trucs politiques là ça ne l'intéresse man jàpp naa ne bu ko bindoon note yaa ngi dégg mais sur l'insécurité ñu jéem a xool nu ñu mënee def des ou bien une synergie d'action mais loolu war na mën a nekk ak yeneen ministre et cetera et mais defu ko pendant vingt et jours wax ma en terme de discours lan la wax lu sénégalais jàpp téeg le peuple de Dakar comme il euh, aime euh, à le dire boo ko xamee wax ma ko donc kooku finalement tu te dis que bon benn benn benn tracé la amoon benn discours la amoon mooy saaboo boo xëyee tiiral ci OS jàpp sa ñàpp OS le matin. la nuit. Ousmane euh, la matinée. il parle aux Sénégalais moom bu xëyee di wax ci Ousmane Sonko. que tu le veuilles c'est de la publicité gratuite. c'est de la publicité gratuite ça on ne le fait pas. d'accord d'accord. léegi nag quel sera son avenir politique loolu moom wax dëgg na yàlla c'est à lui de faire une vraie introspection clinique xoolaat boppam. xool ñi ko doon jay naan ko yaa moom dakaar xool ñi ko doon jay xam nga Abdoulaye Wade saa yi ko xam politique bi mu xamee ne Dakar dafa stratégique bi mu ko xamee dëgg mais da doon bàyyi Khalifa muy respirer un peu ko ay passerelle Dakar ne c'est pas n'importe quelle ville mm-hmm. <laughs> borom daara ji wax na ko Dakaaru xayru qura kazaka baaliyuha xannat li max naa bi muy tagg sëriñ Babacar <coughs> dafa ñëw ci bindu mag ñu ah dafa ñëw ci bindu mag ñu bëri bàyyi na fi bind na ci bi Dakar c'est pas n'importe quelle ville c'est pas n'importe quelle bii sax c'est pas n'importe quel port mm-hmm. ñu bëri jaar nañ fi sëriñ Tuubaa keroog bi mu jógee dëgg la bi mu jógee bi mu jógee euh, ci liggéeyam bu yàgg boobu fii la wàcc 11 novembre 1902 su ma jumulee 11h ñu ibbi bato mu ne woo leen maam Cheikh Anta Mbacké donc et cetera et donc Dakar c'est pas n'importe quel bi maire biñ koy jox dafa war a am les épaules très larges. léegi nag foofu man am na lu ma tour bi mooy donc man daal jàpp naa ni daal. Euh, son action politique il sera obligé de se réinventer xool boppam ci seetu xool ses limites travailler ko. may nekk fii di sol ay costume de listixaar mais sëñ bi di sol costume de listixaar doo gis dara caxan baaxul. d' accord. bu parce que gars yi bëgg rebondir. waaw waaw yow xaaral bëggoon nga rebondir. waaw naa rebondir waaw peu. après juste pour une clarification. Mm-hmm. Euh, par rapport au recours. Mm-hmm. ñuy demande ndax se est suspensif ou pas. introduire woon naa ci mais absolument le recours de Barthélémy Diaz n'est pas suspensif maanaam ajul li nga xam ne. mooy décision bi mooy décision bi.